الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfeti Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul asalaamaaleykum mbokku taalibe yi mbokku jullit yi ñu ngi leen di siyaar di leen màggal di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal Serigne Abbas ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak di ko ñaanal sunu sang bi Seydina Alioune Aydara Mbacké Baye mu karamu ah borom 244 balay sa buri ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal kulu sampam kulu taalibeem waaye di ko ñaanal sama baay bi Cheikh Bayri Diallo ñu ngi siyaar di màggal kuluhum waaw di siyaar di màggal kullu rek koo xam ne yaa ngi suivre seen émission ngëneelu weeru koor tey nag ñu ngi fi en face police Guédiawaye fekk fi ay mbokk taalibe ñu leen di wax lu café Touba ñoom lañ seet si tey jii macha allah ñu ngi ñëw ay mbokk taalibe lañ yoo xam ne dañoo groupe def seen association chaque année ñu koy taxawal maanaam bokk pas-pas ndax ku ci nekk rek am nga sa sëriñ waaye dañoo bokk pas-pas di ko taxawal tey jii ñoom lañ seet si woon mu yemook ñaar fukki fanub koor ñu ànd seeg ñoom jërëjëfati sëriñ Touba. لولا أن هدانا الله سهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى ciar baax baax dina jox sa wàccuwaay tey waa Makhama TV ñoo leen sétti won nak ndax bu rafet bi ngeen di def mu yàgg lool ñu si am bekté jëwrin bo ñu waxé tour bi rek nga jall ci présentation bi ak euh, association bi daara yépp ma sha allah. incha allah di wax a'udhu billahi minash shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi di wax di jërëjëfi Serigne Touba jërëjëfi Serigne Touba man nak ma ngi wuyo euh, Khalifa Mbodj waaw ñu jiital ma ci liggéey bi rek waaye daanaka samay jóoni rek a fi nekk waaw waaw ñu mel ni sëñ Badara Badara Mbaye moom it suñ mbokk taalibe la ak sama jóoni Cheikh ak mboolem góor yàlla yi nekk ci kuréel bi waaw bëri nañ lool macha allah waaye ñu doon li nga xam ni dañoo doon benn say ànd rek di liggéeyal Serigne Touba ci anam bu rafet waaw lu yàgg lool nag waaw lu sunuk ñun suñu suñu suñu ñew ndax biñ fi biñ fi doon ay fere lan waaw daan ñu sax sawar a bàyyi ñuy ñuy laal matti mi ndax boba ay tout tank lan ba tay suñu borom dogal limu dogal dogal sha allah mu rafet lool waaw ñu ci sante seigne touba nak waaw tambalé ci mom te yam ci mom maam japp ñu ni ñun def nañ ci ben jëf bu xawa sax manam nduru lu lu joge ci ñun dal niñ japp lepp seigne bi waaw ndax ñu lot nañ suñ jëmm yi lot na ci di def lu ñu nduru mbiri sëñ Tuubaa kon lépp luñ ci am rek dañ koy tegaat ci loxo yi Tuubaa waaw lépp luñ ci am koy tegaat ci loxoy sëñ Tuubaa waaw xam naa bu baaxee ma jox sama jëwriñ Badara mu daal di yaatal waaw. jëwriñ Mbaye ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ñu ngi rafetlu liggéey bi euh, ñu gis café geek yëpp macha allah chaque jour ngeen koy def. di kota taxawal ni yaram bi li yeme na de. waaw ah? sant rek sant rek sant rek. ndax eh, santate bu baakha a baax ndax ginaaw ñun sunu dund ak sunu de lepp doon ko jox sëriñ bi kon bo eh, bi bi wéru kor accès nun dootuñu amati sago fek jallu ndax eh, la sëriñ ba waxon Cheikh Ibra ne ko am gan go xamni bëgg na nga teerul mako lola japp ñun. ndax dunoo am yëg-yëg ci Cheikh Rafaal yëg-yëg gin am ci Cheikh Rafaal moo tax sunu dund ak sunu lépp dañ koo jox Cheikh Ibra ndax am cofeel ci moom lottu nanu sax ci roy ko waaye noo ngi jéem ndax lii euh, daanaka bi nuy tuut tànk ba léegi ñu ne ci ba tey jii euh, suñuy rakk fekk nu ci moom mi nga xam ni lépp nu ko ko jébbal ndax day tuut tànk boo xam ni ñëw topp sunu ginnaaw gën noo am pësif lépp nuñ ciy def lu ne mu jiitu ci man ji te du ko boole ki wax ñu jël lépp jébbal ko ko muy nit ku yaru mook Cheikh mo Cheikh Mouhamadou Moustapha waaye mbir mi day doon loo xam ni nun sunu guddeeg sunu bëccëg lépp sëriñ bee ko moom kon nun liggéeyal sëñ Tuubaa rek kanu war ba koroog nuy faatu waaye ndokk nag ban ci nee waaye nag yow dan lay jaajëfal ndax li tax nu lay jaajëfal da ngaa ànd ak gaynde goo xam ni ku ànd ak moom mboolem ku nekk ci daaru xan rek dégg ko muy sëñ Aydara Mbàkke di jàmbaari sëñ Touba joo xam ni moo dafa yàgg a liggéeyal tuubaa waaw kon moom dañ koy santati bu baax di bég ci moom xam ni fii yoonu maam bi ne billaahi wa taala bu maamam dellusiwaatoon du rus du am gàcce xam na ne ci yoon wi la nekk waaye ndokk bin ànd ak waa kër Cheikh Mourtala sooy bu ñuy jàmbaar yoo xam ne ñu mën a liggéey sëñ Touba jàmbaar yoo xam ñu nangul sëriñ Touba waaye nag noo ngi santati bu baax di santati kuréel gépp ñoo ngi santati kuréel gépp li ma gën a impressionné bi ma ñëwee mooy dañ ne ma ñoom ñëpp daal dañoo bokk pas-pas nax lii dañ daan gis ñi nga xam ne ay ñi nga ñoo bokk benn sëriñ mm. benn naanuwaay ñoo ko daan def mm-hmm. sëriñ bi amu sëriñ bee ñoom ñëpp dañoo bokk pas-pas. mooy kenn sëriñ Touba macha allah. waaw maanaam ñoom yàlla moo leen nattoo ñu bëgg sëñ Touba yàlla moo leen nattoo ñu bëgg sëñ Touba ba tax na seen kuréel gi ñu tuddal ko kennal sëñ Touba. kennal sëñ Touba gi maanaam buñ ciy waxtaan sax ñoom dañuy jékki-jékki kenn ku ne da ngay aalu barki sëñ Touba Mbàkke waaye nag alhamdulilah noo ngi sant ndokk bi nekkee sëñ Touba. ñu ñaan ñu ñaanal ñu saxal ñu sëñ Tuubaa. jaajëf jaajëf yaaram bisimilah. waaw ma ne bëgg naa jéggi tuuti. muy muy kennal Serigne Touba googu noonu. maanaam bërëb bi looloo ci looloo ci gën a yéeme maam moom ñun looloo suñu foor tey jii boo fi boo fi ñëwee munoo ràññeet munoo ràññeet le kuy wasila kii kuy wasila kii kuréel boo xalaat nag ci yoonu murid rek mi fi. manam lolou lañ seigne touba may way muy té du fess mukk ci mbolo mi li ci gëna yéme moy du fess mukk seigne touba rek lañ jital seigne touba cheraval lolou moy suñu for wa lolou moy suñu for ñun ñëpp and and doon kenn wa li ci kaas yëpp ci barada bi la jóge wa kon seigne touba lañ jital muy suñu wasila wa ñun ñëpp ñu and euh, ñu and massé di liggéel ku tedd ki manam ma leen doon yokkal ni loolu moy suñu for ku ci nekk fa nga jokk way ñu ànd ngir Serigne Touba day day dañuy wat di lancer ba message bi rek di wax ni ku ne mën nga bok fu la neex lepp feggo ci Serigne Touba wa ndax kep ko ci japp rek Serigne Touba lay japp kon ñu masse rek di àndandoo di di di liggéeyal ku teddi ke ba kérok muy mom suñu bakkan inshallah incha xana ñu bayila nga présenter wu rek ma laaj la ben question ñu yoyal waaw soxna si euh, man maa ngi tudd Cheikh Tidiane dëkk fii en face police Guédiawaye euh, ñoo ameel la café gi presque mun naa ne suñu douzième édition moo nekk nii ñu koy taxawal kon tey yéen bu ñu leen séenee ngeen teew ah dinañ leen wax soyez bienvenue ndax ñu ñëpp ñoo bokk Serigne a Cheikh ko quoi waaye maa ngi tuub bu baax nag di jégalu parce que yéex naa ñëw parce que fii laa leen fekk waaye damaa xawoon nekk ci daara ji si biir moo tax moo defan teew waaw waaw. waaw euh, fii doo fekk benn bërigo doo fekk ñaari bërigo ay bërigo nga fi fekk tegoo leen benn mbana ay mbana ngeen teg bu nekk ngeen koy def fa loolu metti na de te jàpp naa ne këll yi nga xam ne gars yi dañuy barkeelu est-ce na ko. waaw waaw loolu dinaa ci sawar wax ndax fii ay yàlla ñoo fi nekk ay bañkat ay Baye Fall ay bàyyi seen bopp nekk ñu fi fii nii ci axlu bi en ñoo fi nekk. parce que amaana këll yi bëri nañ trop comme ni ma koy déggee man dafa may koy am dama koy naqarlu sax. ça fait l'occasion sax ma profité waale waxaale ci askan bi pour ñu xam ne que yii nii kat ñiy jub ñu bàyyi faalu Serigne Touba yi nga xam ne ay militaires sans arme la ñu ñi nga xam ne dañuy jubal dëggal leeral ñoom faale wuñu ko léegi quoi fii góor yàlla dañuy dañoo sasoo ku nekk da nga am sasu lim. billaay wallaay que léegi ni nga waxee comme mbane yi nii chaque mun naa ne chaque jour 11 kilos café dina dee wala 12 wala wala 14 wala 15. maanaam bu ñu évaluer lépp ramadan bi durant un mois bi yëpp nañ def cinq sacs maximum wala six sacs te góor yàlla yi ñoo koy jaayante billaahi wallaahi wa taala ak ak ak ak kooru tey jii nii kon kon ku gis café gi yaakaar na Baye Fall dañuy nelaw juum nga ñun ay ñun sëriñ comme ni ko kii mooy suñu jëwrin suñu tuttànk la judduwul suñu tuttànk la suma jarbaat la mais boo gisee ñu jël ko def ko loolu daf ko daf ko wane ba pare ba pare xaar ko fi xaar ko si kër Serigne Touba gi maanaam fii moo fi gën a nekk xale mais buñ ko jiitalee rek maanaam ab taalibe moo tax ñu jiite ko ba sëñ Bamba ay xale lañ waaye xoola xaar ñu ñun ñun dañu tëdd suñu kër ba heure bu ñu neex ñun ñëw fekk leen ci waar wi ñun fi ñuy dem lu si bëree bëri dañ woo waaye man fii ni ma leen gisee man maa fi ñëwal sama bopp ndax tolluwaay bi ma gis ak liggéey bi fi ngeen ko yóbbu ndax lii dafa taaru lii dafa taar ku gis rek am na loo xam ne mi ngi lay impressionné fii ba di nga bëgg a découvrir loolu lan la yaaram bi ñu ngi leen di santaat bu baax a baax barki borom daal euh, waxi këll mhm. mu bëgg nu bàyyi ci xel bu baax gis nga këll gi mhm. nan lay nan lay dimbali rek nga def ci nan lay dimbali rek nga def ci waaye li war a defaru sëriñ bi defar na ku démb xaaruñu kenn ci dara. yàlla nañu ko yàlla fayal barke maam Serigne Fall jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jaa ngeen jëf bëgg naa lool kon ñu doxaat ñu ngi waat ak sunu maam maam Alpha ñu xam ko bu baax a baax fii si police su Guédiawaye maam dama lay bàyyi nga nuyu waa Makkama TV ma dalal la ñu waxtaan si ñi nga xam ne ñoom lañu ñu seet si fii tey jii muy waa Akhlu Café. ah salaamaaleykum jaar naa leen yéen ñëpp di leen nuyu ci seen tur seen sant. Eh, di wax ne nak ki sama set la waaw bu ñewé dama interview dama ci contane waaw wax ko nak li nga xam ni mom la xam nit ci li may laaj waaw. Eh, mam no gisé ñi nga xam ne wéru koor gu né dinañ taxaw fi ni si buntu police ñu xam ne fi yoon bu yaatu la ndax préfecture baangi fi poste baangi fi sapeur baangi fi bari nañu fi jaar lool at bu nekk ñukoy def di taxawal yeen nan ngeen nekk ak ñom jàmm ak salaam taala mi nga xam ne moo initié mbir mi xale bu yaru la bu su fee indi benn problème waaw tey màjjal tele muy màjjal daf koy teg ci yoon bu liggéeyee wàcc ñëw doxal Baye Fall te loolu lañu xam ci Baye Fall waaw kon nag ñun dañ leen di ñaanal yàlla rek jàmm ji ñu fi am ak ñun mu gën a sax lii ñuy def yàlla jox lañ ci tiyaaba yi ñu fi mu gën a kawe waaw waa maam nax lii du am dérangement ak yéen ñi nga xam ne fii dañ fiy bind plainte yee yenn affaire yeeg yooyu nax amul dérangement. te dérangement amu ci parce que oto yi fii jaar tàppkat yaa ngi à gauche te ñoom tëgguñu fi ay sabar defuñu fi dara lu dul teg seen xasida di def seen majaal ñu yàqaluñ ñu dara waaw dara la ñu yàqaluñ waaw ok merci ok ak sa bu baax a baax a baax sax waaw waaw waa ñi ngi yeeg euh, tonton Abdoulaye ñu gën koo xam fii nii si euh, police Guédiawaye police centrale bu Guédiawaye euh, tonton nan nga gisee Baye Fall yi ginnaaw ba nga nuyoo waa Makhama TV ba pare nga wax ma nan nga gisee baay Fall ak nekkin bi fii. Ah, maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm. ndax li ngeen di def nii yaatal la te yaatal moom lépp loo xam ne si da nga koy yaatal ngir lislaam jëm kanam dafay nekk lu am solo ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ah man nag eh, yàgg naa fi waaye ñii seen taxawaay fii eh, am na solo ku ñuy wax eh, Talla Baye Fall moo ko njëkk a commencé teg benn cin mu naw suur boobu sax da doon taw sol na sonn na keroog lool wax dëgg yàlla ci di ko def mais bu mu ko bu ko commencé noonu ci at boobu la affaire bi commencé dox. gars yi di gën a organisé di ñëw di ñëw di ñëw ba mu toll fii waaye benn mban rek lañ daan teg léegi day ne léegi léegi ñu ngi ci ñetti mban yu mag bu ko yii dañ koy sukkar yii duñ ko sukkar waa koñ bi yëpp ba ji Médina Gounass ci kaw ñëpp dañ fiy jël si kafe wax dëgg yàlla te ñoom duñu agressé kenn ku leen jox ñu jël ku leen joxutit ñëf def seen i pexe ñof ñoom ñëpp am na ay liggéey bu bu bu koor gi jeexee doo ci gis kenn at ba at nga leen gis kon ñoom taxawaaluwuñu ay bàyyi faa leen waaye dañoo dañuy liggéey di daan seen doole lu leen waaye jox ñu def ko ci jël seen alal li di ci def wax dëgg yàlla man daal li ma leen mooy suñu borom fay leen te taxawu leen ñoom ñëpp am nañ ay responsable ñii am nañ ay ay soxna am na ay doom kenn du fi taxawaalu organiser nañ ko ba mu baax a baax noonu ñu ñëpp la ñu dogoo te jox nañu cër wax dëgg yàlla kon nag yàlla na leen yàlla fay ndax ma noonu defi leneen te li boo gisee mu yaatu léegi ci Ndakaaru boo xoolee fii la ñi njëkk commencé ci Ndakaaru fii la commencé yaa ngi dégg te neen képp ko am si woor nga jox la benn tàndam nga naan ko wala benn kaasu café wax deug yalla yalla dina la fay kep ko wor lim am di nga ko am kon nak ñom bu ñu lay li lii yaakaar duñ mëna ñak kon nak yalla leen yalla jàppale yeen seen liggéey rafa na trop jërëjëf alhamdulillahi lazi hadana alhamdulillahi lazi hadana لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سهر رمضان الذي ramadaan weeru koor weeru yërmande sëhru ramadaan weeru koor weeru yërmande sëhru ramadaan weeru koor weeru yërmande alhamdulillahil mujibi sil qadar sëhru ramadaan weeru koor weeru yërmande man xasana fadlan booy ñu lay siyaar bu baax a baax waa Makhama TV ñoo seesi woon waa Akhlu Café ñu ne ñu kër gi mooy baas bi mooy lépp ndax euh, waajur wu góor wi ak jigéen bi fi nekkoon ñoo leen yàgg dooleel ci bagage yeeg lépp euh, saa borom def nag euh, at mi fekku leen fi ñu leen di ñaanal suuf oyof toll seen kaw barke weeru koor gi waa Makhama moo la seesi woon yaay booy di la wax nga nuyoo te nga wax ñu tur wi ñu yeggale liggéey bi. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm kenn ku ci ne ci turam ak santam ginnaaw nag ba ma santee yàlla jullit ci Seydina Muhammad alayhi salaam maa ngi sant ñépp di leen sant di sant xale yi xale yi day mënumaa wax sax seenu baax seen baax ci boppam ak seen yar ak seen teggin yàlla rek moo ko xam ñii fi jógee itam comme ni nga ko waxee rek mhm. fu ñu jullee ñoo ngi leen di ñaanal mhm. yàlla ñu xippee àjjanay firdawsi ndax ñu baax lañu woon ñu am diine mhm. jur seen njaboot gi nag yar leen ci diine ñu nangoo takku nag doon ay baay faali sëñ Tuubaa rek waaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan yaay booy nekk ak ay baay faal euh, si kër ndax yomb na ndax dugg beeg génn beek rootum ndox meeg euh, yaay ndax loolu kiiwul xajoon nañ ko luñ ci def xeeb nañ ko ndax ñu baax lañu. Mhm. te lépp ci yoonu yàlla la mhm. ak sëñ Touba. kon ñun loom ñoom lu ñu def rek mhm. ñun xeeb nañ ko waaw sant nañ leen bu baax alhamdulillahi lazi hadana alhamdulillahi lazi hadana وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سهر رمضان الذي weeru yërmande alhamdulillahi mujibi sil qadar sëhru ramadan weeru koor weeru yërmande man xasana fadlan bi laylatil qadar sëhru ramadan weeru koor weeru yërmande yaa rabbana bi fadliha si laylatil فاستر معائبي واسمع خولتي يا ربنا بفضل هذا اليوم أصلح أموري وأمور قومي يا ربنا أرجاء نارين هب لي وللأمة في دارين سهر رمضان ويرو كار ويرو sehuru ramadan weeru koor weeru yërmande sehuru ramadan weeru koor weeru yërmande alhamdulillahil mujibisil qadar sehru ramadan weeru koor weeru yërmande man khasana fadlan bi laylatil qadar weeru Ramadan weeru koor weeru yërmande yaa rabbana bi fadliha si laylati dox jaman ma bisaab jox ma café yàlla mi fay yàlla ni fay sant naa leen bu baax lii nag moom waaw waaw lii moom Sénégal dong la mën a am waaw Sénégal la bi moom lii ko jaralan lu ne sans borom ah jàmm ji moom la wuti woon moom la wuti woon ba julli ci kaw ndox jàmm ñii nga xam ne ñu ngi def yiw maa ngi ñaan sëñ Tuubaa nag yàlla na leen fay ngeen gi pay waaw yàlla na fay yàlla moom jàmm ñi yàlla na fay pay barke ba sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla fay alhamdulillahi lazi hadana alhamdulillahi وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سهر رمضان الذي yàlla tey ñëwoon tey seet si waa lu kafe fii si polisu Guédiawaye ah, ah nekkoon émission bu ama am solo macha allah jëriñ dafa waa Makaama bég nañu lool ndaxte man dama aalu barki borom Daaru Muxti sànq dama am mbégte mu yaat oto yi ak heure boobu borom kër yi xëyoon ndeysaan ni ngeen leen doon taxawoo ah, ak Baye Fall ni ñu taxoo woon di dem di leen joxe ji loolu yéeme na Fall ban émotion nga am tey ji màkkaama ñëw seest la si liggéey bi nga xam ne di ngeen ko tàmbalee léegi mat na fukki at ak ñaar waaw ah, bëgg rek bëgg rek wax dëgg yàlla yéen moom taalibe taalibe gi ñu gis yéen rek moo ñu gën a doy lii nii am na ñu ko yàgg a bëgg mais boobalee ñu jaar fay jaar mais mosuñu ko nangul doomu aadama mais nit ku nekk taalibe amul lu mu romb bi nga ñëwee waxtaan ak ñun li ñu wan mooy taalibe bi ñu waxtaan ba ci biir wax bañ expliqué sax ba mën na xam naa Talla Diop ba ma waxaatee yow wax na ma yeneen kàddu yu gën a kii yu gën a taw féexe yooyu sa gaay it bi ñëwee ak taalibe lañu mën ci ñoom ñun dañuy jàngaa ci ñoom sax ndax nit du la jàngal lu ak taalibe waaw li moom sëñ bi ñu ci nàmbatar ni rek ñu ciy bëggee nii rek xanaa di ñaan yàlla gay gën gën ñoo taw féexal rek waaw ndax ñun moom mënuñu dara lépp suñ tuwaale rek lépp suñ tuwaale rek waaw gars moom wax dëgg yàlla ay ndax def li ci neex mooy jëf sëg ak yéene te wallaahi asim gars yi la ñuy jëfe donte la seen tool seen seen comme comme tolluwul noonu wóor na Sëriñ Tuubaa yéene la ñuy jëfe waaw voilà billaay walaay même ku ci jox wu sax sax da ngay am loolu naqari waaw nga xam ne lépp Sëriñ Tuubaa la waaw ñu gën a góorgóorlu rek di gën a ñaanalante rek waaw ndax taal amul lu ñaan di ñaanalante di ñaaxante rek waaw loo ma doon wax lu ba léegi daa waaw mooy commissaire Arona si commissaire Arona Sy bu baax la sept ans ngi ba ñu ko àndee moom ba léegi chaque jour danaa la bu leen root ñun ñëpp ci koñ bi la njëkk ku ci nekk am nga sa kër mais kenn dugg sa kër di root si rëb na am la ñu dem root bu ñu waxee mu ne man maa ko jaayante ci ndox mi xam nga looloon ndimbal la bu la neexee nag yéen ci koñ bi ngeen dëkk am ngeen fi kër ndax fii du ñu waal yaan amul kenn ku fi dëkkoo ci koñ bi ñëpp ci koñ bi ñëpp ci koñ bi lañ dëkk ku ñu neexoon tey ku suba ku nekk indi benn paan sax mën naa mën naa mën naa segg café mais moom da koy jaayante dinañ fa root ay ay set bërigo nañ ko fi di ko jox jaam yi mu koy jaayeen di ñaxam ba pare di génne waat xiilam xiiwalam dañu jox guddi moo ñu yónnee reer fii gars yi buñ tàngo jë ba pare dañ ñëw toogaat fii moo ñu yónnee waat rek xam nga loolu tawfeex la dañ koy ñaanal rek yàlla gën a guddal fanam lim amoon yéenam ay doonam eggalal waaw loolu lañ koy ñaanal bu baax a baax waaw dëgg yàlla yàlla na saa borom yokk a baax loo leen mën ren yàlla ngeen mën lu ko farxa baak Sidi Ibrahima ak bés nga xam ne moom lañ fi teew ñun ñu ngi am mbégte lool wax si Maakaama TV. waaw bëgg rek bëgg rek xam nga ki ñëw moom di la feeñal sa liggéey moom kooku kooku moom dalay bëgg dalay dimbali ko waaw waaw taxawaay bi moo gën a rafet sax ndax amaana bu ngeen ñëwoon taxawaay beneen taxawaay duñ ci am lu neex mais taxawaay bi nga ñu gën a taxawee sax moom moo ñu gën a neex waaw bëgg nañ daal en tout cas waaw yàlla Sëriñ Tuubaa gën a taxaw rek jaajëf jaa ngeen jëf ñu yéen a ngi woon si seen émission ngëneelu weeru koor tey ji ñu seet si woon suñu mbokku taalibe yi ñu am ci mbégte bu yaatoo yeetu waa lu kafe ah sant nañ bu baax a baax di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak di ko ñaanal bay Abbas Mbacke waaye di ko ñaanal Cheikh Jëmb faal di ko ñaanal Seydina mu karamu Cheikh dara Mbacke Mbacke yàggal wéral ñu ngi koy ñaanal lépp yawa lu ñu mel yawa ba lay sa dundal waaw di ko ñaanal kulu samp di ko ñaanal sama baay bi Cheikh Baye Ridial Fall bu ñu ñemee yow képp la jaajëfati yeneen émission ak Makhama TV di santaat bu baax baax sama jàmbaar yi jëwrin Khalifa maa ngi lay sant bu baax Fall di santaat Baye Kirama Fall aw ma seen fay yàlla na leen saa borom fay jaa ngeen jëfati doole Seydina Karam